السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته سيرن بي سامبوك ساخاريت سليب شيخ ادم شيخ مام شيخ عبد الكريم باك مو نيو في دي لا شيخ اك نوكل تي تي بيس بو تيد بي خامني سونو سانغ بي ني بوك ني نيب موي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام موم لا نكاي ماغالي mu ñëw fii nag dina ci ndokkeel ak a ñaanal lépp loo xam ne loo ci sàkku la suñ moom defal la ci lu kawe njot moom de nee na taal bi kepp na loo xam ni ay ndaawam dara newu ci te da koo bëgg a duy nag di googee mu ko bëgg a duy nee na moo tax mu ñëw fii ndax moom kat amul kenn ku dul Cheikh Abdoul Karim ndax la Sëriñ Tuubaa waxoon boromam ne ko min kal aruumu yow ma akuna mi ma abaw li xëy li ko wakkuna ne ko nag ma dimbali ba du ma sukkal te du ma raamal kenn ku dul suñu waaye moom loolu du ko wël day daal di doxee jéego yooyee kon nag moo tax mu ñëw fii di di yëkkati ay kàddu di ko jëmee si jëmm ju baax ju tedd jii ànd ak mbokk taalibeem yii nag xam ne ay taalibeem lañ ay njabootam lañ xat-xati jamono moo tax waaye bu doon loolu dina fa ñëw ñëwin goo xam ni ñëpp dinañ xam ne Cheikh Abdou Karim Mbacké moo fi teew ndax ñëwam gi kat lenn wuutaloo ko ak Cheikh Abdou Karim Mbacké ñëw fi ndax fépp fu mu teew bu fa amee benn seconde dinañ xam ne jëmmi Cheikh Abdou Karim Mbacké fàddalu jaar na te loolee mooy defar bu nangu moo tax mu ñëw fii di la si kon tax mu nangu loon yàlla yu ma yooyee seen cëri nee na ay kàddoom foofu képp la koy yëkkati jëmale ko fa ndax wax na ko léegi bi fa télévision bi ñëwee mu jëmale ay kàddoom foofee kàddu yooyu itam lay féddaliwaat rek dara wut téye ñu ngir yàlla yi hmm. bëgg ñu ngir yàlla yi daawal hmm. ñu ngir yàlla yi hmm. sang bi léegi ñu ngi koy wax ci ay waxam de sëriñ bi dafa yor ay ndaal ndaal yoo xam dafa ñoom yëpp si sëriñ bi dafa fees tem sëriñ bi kay ñooy ñooy ay ndaal yoo xam ne yorul dara sàkku ci moom mu def ci mbir yi eh, it ko gisee noonu rek ci man mbëggeel ci xolam moom ci suñu mën naa jeex mu bëgg ba yàlla moo ne ci nit bu bëggee ngir alal bu alal newatul loolu mën naa soxe nit bëggee ngir euh, taar wala dajar daraja mën naa soxe waaye nit ngir yàlla yàlla mi ngi fi fu mu sa jógee sëriñ loolu la ci euh, boole ci mbëggeelu bu baax boobu di Cheikh nga xam ne ci baatin lëkkale bi nga xam ne moo ñu lëkkale waaw ñu ngi sant bu baax ndax lii lu rëy la waaw tey waxtoom xat na jamono bëriwul jot yi yombul mu dakkal loolu yëpp ñëw rek dëgër ñu ci teewaayam yàlla seere na ne gënoon tuuti si jowat bi bu ko yebaloon dayoom lañ koy wax na ko léegi moom tey xoolewul Cheikh Adama rek déedéet waaw xoolewul Cheikh Abdou Karim rek déedéet xoolewul sëñ Fallou la dégg kon tey toogaayam fii moom toogaayu Fallou la suñ suñu ji loolu lañ koy xool ci ci ci yëpp di ko sant bu baax a baax wa incha allah. waaw alhamdulilah rabil alamin alhamdulilah rabil alamin alhamdulilah rabil alamin sallallahu ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay aywa ñun mbokk yi yëpp ñu baax santaat suñu borom subhaanahu wa taala julli moo ko waral nga xam ne lépp lu fi amet ci jëmmam la suñu borom sukkandeku bu amal loolu bu ñu fi daje it nag ngir loolu ñun ñëpp danañ lottu ci delloo suñu boroom jukkal subhaanahu wa taala waaye it nag di ñaan lépp luñ fi ñaan yàlla na ko sama borom nangu ca na mu waaye lépp nag mu wasal ko ci Cheikh Mouhidine Alpha Samba Diallo ndax it nag kom noonu nanu seenu cant balaa yegg si ci man ngeen jaarale ko fi mu ko teg Cheikh Mouhidine Alpha Samba Diallo di santaat suñu borom beneen yoon it nag bi fi sëñ Fallou teewe man gisuma Cheikh Adam ndax sëñ Fallou ndax noonu fépp fu ñuy woote yàlla yonentam man Fallou duma ko loolu moo ko wax bu ko Cheikh Adama nettali wut man ma wax loolu wute ne xam na sëñ Fallou nekk ndawam mooy li njëkk a ndax da nga bëri xam-xam da nga tabe da nga yaatu danga nga bëgg yàlla ak yonentam da nga bëgg Sëriñ Tuuba kon Cheikh Adama bu toogee tey boo doy loolee lépp ñu wóolu ko ci boo ko suñ borom wóoluwut woon rasulullah sallallahu alayhi wasallam wóoluwut xaadimu rasul wóoluwut sëñ Fallou wóoluwut bu yegg ci Cheikh Karim Mbacke suma xarit ba te gisaguma ko wallaahi billaah kon bés bii mën na koo ñàkk a fekk ndax it nag ñun taalibe yi buñ santul rek ñoo ngi xarab kenn ku mu ne man boobu am na noo meloon laata ngaa yegsi ci kenn la àggale ci suñu borom kon ñooñi fu ñu mën a toll nañ leen di delloo njukkal Cheikh Adama dëgg de moo neex yàlla man depuis ci soo ba léegi maa ngi bëgg depuis démb ba léegi maa ngi bëgg waaye wallaahi bu ma la gisee sama xol bi ni ciy sedd mënuma koo natt la ko waralit lii rek taalibe boo bëggee sëriñam deseloo ko dara boo ma doon jëlee tey ci naaju tant que waxuloo ma ne jóge fa du ma jóge te bëgg gi nga bëgg Cheikh ñun wér nañu ceng wér nañu ci lu wér bëgg bu amee triche rek neex naa xam waaye bëgg gi yàlla rek moo tax teew nañ ci sa digg kër ci sa njaboot say taalibe wër la nga ne leen yéen a ngi nii yéen samay taalibe sama njaboot. man sama sëriñ a ngi ne ku amul cër doo ko joxe ku amul cër rek doo ko joxe ndax it yombut loolu ngay wax say taalibe wër la nga ne leen sama sëriñ a ngi ne bëgg rek bu tëlbët mooy génne yenn kàddu yi sab teew fii nag ñun yokkute la rek ci ñun lislaam amati na ndam lii rek a taxoon xaadimu rasul dem géej wallaahi lii rek a taxoon xaadimu rasul dem géej lekkut naanut yendalut fanaanut daray addina ñorut ko kii dem nag ba ëgg ci li war a jëppandikoo da ciy dugal baaramam soo nga xam ndax saf na foog naa daray addina ñorut ko kon bu diiree ko ba yegsi fii mooy liggéeyam tasaaru na àddina wërngal këpp di jaajëfal ku tedd ku yiw ku baax ku tabe kuy lëkkale nañu majlul islaam fi tawxiidil kalaam loolu ngeen dox si benn le baati ngir lislaam mën a amaat ndam yellonte na ko sëñ Fallou doon defeek Baye Niass na ko sëñ Fallou doon defeek maamu jëmm jii toog ca waxi naan mission yu noobul yu rafet ñu am ra njotu rafet ci seen jëmm yii ne loolee maam yi doon def ngeen topp ko nii du mos raaf ndax kër bu rappee rek noon am ci lislaam kii buntu ndokkit nag yow ba ngay feddali loola mu mel ne mission boobee ngay dox ba léegi ndax sëñ pallu la woon ak maamu jëmm ji nga taxawal sëñ Fallou ci sëti jëmm ji ñoo ngi sant tey gërëm ñoo ngi sant te lottu ci tey gërëm loo xam ci teraanga loo mën sa xel li muy njëkk a daj mooy Cheikh Ibrahima kenn mënu laa fay ñëw ngeen ci place bu tedd wax naa ko sànq bés bi ma fi njëkkee yegg ak sëriñ bi boobu fii amut yoon yoonu fraudeur la woon bi mu tegee xeer bu njëkk bi bi mu geesoo daf ma ne fii mooy ardu saada mooy suuf su texe ñeel texe yi kon bu ñu fi sa borom dajale ñun ñëpp war nañoo sant fii bésu tey bii képp ku fi jóge te defaruwuloo billahi wallahi wa tallahi xoolalaat sa bopp jëmm yi fii daje doy nañ sëkk nga xooleen rek mbaa nga bokk ak ñoom mellum nga lam noyyi doy na ci jëmm ji teew tey doy na ci jëmm ji ngeen jàkkaarloo beneen bi loolu sama mbokk yi taalibe laa koy digal yàlla yombut amul kenn kuy sëgg for ci góor yàlla koo ci tudd rek sonn na sonn na sonn nañu sëriñ bi nee na ma dem nay jamono benn une heure de nelaw maa ngi koy jégalu di ko tuub ah loolu métti na yàlla na too ma bëñ buy métti def naa juróom-ñetti fan juróom-ñeenteel ba lay soog a nelaw sa sëriñ bi dara mosul sedd ci moom ma ñëw tiim ko waxul ma yaa ngi tane de mu ne pexeel bopp rekk waaye bu la dëjjamee waay waay bu ko soox noonu di ko gis kon ñun nañ góorlu nañu góorgóorlu comme amu nañu ay wéeruwaay ku bëgg dara foog nga nangoo def dara ku bëgg dara foog nga nangoo def dara bëgg a toppee taalibe yombatut man li ma gis bi àddina sosoog léegi ma saa wax ci benn conférence Seydina Aboubacar radiyallahu taala anhu ba àndoon ak Seydina sallallahu alayhi wa beneen bi ci Cheikh Ibra lañ ko gis ndax ku dul ñooñu bëri na ñoo xam ne ñu toppee nañ ngir ñu wàcce la ngir ñu seexal la ngir ngir ngir ngir bëri na waaye ci yàlla rek tax bëggoo sax ngu na yombut sab teew bii tey jii nag meneen mbégte rek la ñuy jural noo ngi sant noo ngi gërëm di sàkku ñaan nga ñaanal jëmm ji ñaanal ko mooy ñaanal lislaam تكوتني يا ماي طالبم ديدت لله ورسوله اقول الله تعالى رك ما تخ ماي وقت نيون الاسلام جي بون لين نانو ادنا بي بن بس لاي خينا ما نحن ندخنا في لو في باخ نيوما لنن لي تي ديس يب نصر الله كو ادنا تي بي رك لا يم ña dawalon alal yep kelimatu len bour yep nekkon yep beyi sax jaarutun ci sen buntu kon yalla rek ngeen ñaanal jëmm ji mu yàgg fi lool te wér ci barke Seydina Muhammad noo ngi ñaan rasulullahi ci jëmi rasulullahi ci bésam bu tedd bii Cheikh Ibrahim yàgg fi Adama Sène yàgg fi ak mboolem taalibe nga xam boon nañ ko asalaamaaleykum wa rahmatullah

امين يا امين امين امين امين